Assalamualaikum Senegal. man la Ndiaye Ngom la ma ngi nuyu yëpp la président Macky Sall ànd mom moom moom bi yàgg depuis 98 kon nak ñu and ak M23 and ak président 98 su ko ñoo takul gram. ñu takul ay 6 kilos Ñu am ñoo am 6 gram. kon kenen du am 6 gram. kon nañu bëgg a arti seen arti wax yi ngoy Fall na wax waxam ñu tax dox do xam na takku or way Marième Faye Sall dimbalul Ngoye Fall jox ko jóge or Macky Sall jox ko jóge or nañ arté wax président du wax yoo xam ne wax yoo xam ne ko war arté. gis nga li dañ ko war arté. Di nga war ci jóg buñ dugg di yàq der président ma yàq der soxnam si ñun M23 ñu moom sax son si parti bi sax son si réew mi saag livitoo yi mag yooyu saag yi gàdd sax nañ artisan yi ko bëgg a jàppale doo wax yii nañ génn seen wax yi at Marème Faye Sall miskin lay dimbale néew gu dimbale ak ñu sonn ñi président Macky Sall ku wax ku joxul njaay moom du jox keneen du moom du jox keneen yaa ngi dégg nañ àtt lii ngoy Arte leen lii ngeen di def nii rafetul